saraax la nuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa jàngat bu yaatu ba sunu lamb yëkkati ci diggante Moustapha Gueye Tyson ak Yaxya Jóob Yékini jaloore yu ñu def ci lamb xëy gu ñu xëy lamb dëddu leen moom la sunu lamb fësal kenn mënta wax lamb waxoo Tyson wala Moustapha Gueye wala Yaxya Jóob Yékini ku nekk ci ñoom marqué nga say empreinte bay nga sa waar bu dee Moustapha Gueye la sunu lamb xam le mooy deuxième tigre de Fass boobee phénomène la woon ci ay jamonoom mbooleem mbër mu nekkoon ci jamonoom bokk ak moom génération daan a bëre ba moom mën a bëre ba yegg ci loor jóge Pikine ñu naan ko Mohamed Ndao Tyson moom Mohamed Ndao Tyson lañ doon wax mbëru askan wi mu ñëw changé lamb ji indi beneen doxalin moom mbëru askan wi moo fii li soow ba noppi seeral kase yi noonee la def moom Mohamed Ndao Tyson gone Kaolack gi marqué ay empreinte ba kenn mënta wax lamb te duddoo ko ba mu jàllee Yaxya Jóob Yékini l'enfant de Joal moo ñëw daal di moom ba mu yegsee la gis beneen xar kanamu champion fukki at ak juróom la toog ci mu nekkee roi des arènes nit yor na couronne bi juróom ñetti at waaye ñetti champion a génn lamb dee le deuxième tigre de Fass Tafa ba ko Balla Gaye 2 daanee le 3 mai 2009 la bàyyi lamb ji boobee la tekki ngeen bam xooli leneen moom Mohamed Ndao Tyson le 3 mai 2015 la ko Gris Bordeaux daan mu tekki ngeen bam bàyyi lamb ja bu dee Yaxya Jóob Yékini le 24 juillet 2016 la ko Lac de Guiers daan mu bàyyi lamb ja ñetti monument lamb yooyu yépp la journal sunu lamb xam le mooy defet bokk na ci li leen bàyyiloo lamb bu dee yeneen champion ya di Bombardier Gris la journal ba xam le mooy seen carrière la ca des bareetul bu dee baabooy la Marodi moom a bopp la tekki ngeen ba bàyyi làmb Lac de bu wàllu ku ko ne avancé ngi te waxu ko avance Gris Bordeaux la waxu ko lu ko neex moom la journal ba xam mooy occasion bu mu am ngir laaj Gris Bordeaux da koy def saa yu ñu ko tàllalee micro buy lim ay adversaire am Gris la cay jiital moom la mu jàpp mooy làmb ko boore Gris Bordeaux ndax daan na ay magam daan ay rakkam mbooleem rakki Gris Bordeaux ya nekkoon face moo leen daan kii di Papa Sow Babacar Diallo a jaar moom la Bordeaux bëreeg moom amul pertement bu nu jàllee ci xeex jàngoro jii di coronavirus mbooleem ñi yëngu ci làmb te ñu xam leen ñu nga ca biir waa CNG ñoo njëkkee xeex ba jàppale le ministre des sports ci enveloppe francs association des stades bi nga xam ne moo regroupé anciens yi ñoom it yëkkati nañ francs teg ca taabal ja waaye le journal sunu làmb xam le mooy mbër yi nga xamante nii am nañ public am nañ mbooloo feyeku nañ fi kase bu leen ca xeex ba muy Balla Gaye nekk ci